waa salaamaaleykum voilà gars yi li tax ma ñëwaat ni au plus rapidement possible c'est pour ma am loo xam ne dama ko bëgg a leeral gis ngeen fii refuse to be silence on refuse d'être silencieux maanaam bañ nañu ku ñu noppiloo wala ku ñu noot dealer yaa ngi deal dégluwaat leen ma encore ma wax leen dealer yaa ngi deal te loolu tegal naa leen ko léegi waaye dama leen di leeralaat dara man ngeen dem ci page Mimi Mimi Touré man ngeen dem ci page léegi nii ngeen liir ci page Mimi Touré li nga xam ne moom la tontu ci deal bi deal bi nga xam ne moom la quelques opposants maske ku mel ni Idi Idi Idi dinaa leen wax Idi mi nga xam ne sax jàll na élection ja jàllal nañ ko parrainage idi ci boppam bokk na ci deal bi Macky woo na ko ci nee na ko idi caaya lakk na de fi mu toll nii dafa mel ni par force il faut élection am te bu amee dinañu ñàkk élection yi ci ni mu gën a ñaawee jàppale leen ma ma pousse élection yi opposant yi nga xam ne duñu ay opposant ñii nga xam ne ñoom ñoo tuddee seen bopp ay opposant sol ay mbubbu opposant ñu ngi waajal dem toog ak Macky sàll ci pale bi ëllëg nee nañu yaayoo dañuy waaw wax pour recaler recaler yi pour ñu fexe lépp lu ñu man Okay, hold ok encore une fois dama leen di liiral lii yéen ñëpp ngeen déglu déglu ça c'est le poste Mimi Touré def naa sama liggéeyu activist ak investigateur woo naa ñi ma woo ñëpp léegi képp ku dem ci meeting boobu suba dafa nekk ci deal ak Macky Sall Mimi Touré leeral na position mi ngi nii ma waxaat leen li mu bind je ne suis en aucune manière intéressé par une rencontre avec ak Macky Sall bu defee loolu automatiquement day dem ci at Macky Sall daf ko tàggee qui m'a illégalement renvoyé de l'Assemblée nationale et fait annuler mes dizaines de mille mes dizaines de mille de parrainage pour m'éliminer de l'élection présidentielle tout ce qu'il reste à faire à Macky Sall c'est de respecter la date officielle de l'élection présidentielle du 28 du 25 février d'organiser des élections libres et transparentes et libérer les les milliers de prisonniers politiques qui accroupis dans les prisons, l'opposition devra s'unir pour se battre, pour battre son candidat Amadouba dès le premier tour et engager notre pays sur le chemin du changement véritable. lii la Mimi Touré bind ci page am bëgg naa sénégalais yëpp dem xool ko man de wallaahi azim Mimi naw naa la parce que nag comme li may wax alquran sax daf ñu ne mujj bu rafet moo jarañaan mujj bu rafet doomu aadama jëng na jëng jëng jëng ba vraiment mu tollu à un moment donné de vie mu def demi tour doomu aadama baax na baax a baax a baax a baax a baax ba un moment de sa vie mu def demi tour mu jeng ñu bon ñi ngay gis ñu mel ni idi bokkatu alquran sàcckatu alalu réew mi naankatu deret yi ñoom ak ñeneen ñi may bañ a tudd seen tur ndax ñoom yàkkal naa leen ci seen ndab li ba pare ñu ngi tegaat dil les anciens les mêmes dileur les mêmes comploteurs ñu ngi tegaat seeni ay deal nee nañu yaayoo pour annuler élection yi nga xam ne mënuñ ci dara élection yi sénégalais dama bëgg ngeen xam ne ñoom mënatuñ ci dara Macky Sall dëmm la waaye ban recours moo ko dese conseiller constitutionnel génne na listam officiel ay bandi la bëgg a wër dafa bëgg a yëngal réew mi dafa bëgg a indi ay tuuti jafe-jafe yëngatu mu ne voilà le pays est instable mënuñu am ay élection te fekk dara yëngatuwul comme ni ko suñu xarit bu baax bi waxee képp ku fi yëngatu di dof-doflu nee na diw leen seen bakkan yi mentalaatoo ngeen dem tëddi seen kër yi lépp ay dil la mën nañu yëngatu fii police di sànni sànni lu ay lacrymogène seen policier yi ci boppam comme ni ngeen ko xamee ak seen banditisme ak seen dealer lépp ay dil la bëgg nañoo wuy ji pale suba dem tegiwaat ay dil ñu joxaat leen ay millions voire des milliards pour ñu jéem a pousse élection Sénégal yi bañ leen ko nañ ko bañ ba tëdd ci suuf nañ ko bañ ba mëq suuf dama ne ñoo bañ ñoo lank élection danañ ko tëgg le vingt cinq février bu boobaa ñu jàpp la supp jalañ la yow Macky sàll jël la def la ni xale yi daan def jël doomu taal puudar sa kanam gi ndax sa ñàkk jom boo leen yaakaaree Sénégal ñun suñu maam yeeg suñu baay yi liggéey ba développé réew mi yéen baadoolo yu bon xatxaana yu xottoori yu garaaw yu doomeeraam yi ngeen bëgg a ñëw yàq suñu réew mi duñ ko nangu il faut le savoir on fera face voilà gars yi waa ji mooy waa ji waa ji mooy kii jomaay mooy sonko sonkooy jomaay loolu lañu am lii mooy dëgg nañu préparé wu gars yi fatt fépp nag buñ leen nee fatt fépp mooy fàtt fépp ñu ngi remercier Mimi Touré de Mimi billaay ñu ngi lay jaajëfal parce que li jafe ci doomu aadama nga nekk di def mënoon naa gën a yomb nga dem toog ne fi mu toll nii guddi yi ñu toll yow loo laaj Macky Sall mu teg ko sa loxo ndax xam na sa bind fi mu yegg ndax man mi xam dara xam naa sa bind lu mu sobe ci senegal ndax danga nekkoon Nations Unies d'accordu ma woon ak yow ak say jaar-jaar yépp ndax xam naa sa bind bi pouvoir bi mu am waaye ñu ngi lay jaajëfal te ba léegi nag man personnellement may continuer ñaan nga ñëw ànd ak jomaay man loolu laa ñaan leneen li yépp man intéressé wu ma ñëwal nga ànd ak jomaay ñëwal nga ànd ak jomaay ñëw leen yéen ñépp ngeen jox ñu Jomaay parce que Jomaay moo euh, mooy un changement vrai un véritable changement man loolu laa wax ñeneen ñi yëpp nañ leen bet di sànni fële tel tous les bandits là waxuma opposition bi waxuma opposant yi tudduma ci ñoom Boubacar Camara ak ñoom in seen wax dëgg yàlla tudduma leen ci ak ñoom Déthié Fall ñooñu waxuma leen beneen camp wax bandi yi le groupe des délinquants jette-les en mer en pleine mer parce que banditisme bi nga xam ne moom ngeen pare pour def ci réew mi dootul jàllati c'est fini avec sa tout ce banditisme masqué là c'est fini gars yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allahu rabbi ñi ñu bëgg a seetaanaat dem leen ak ñun ci tiktok bi ñu ngi dem wax ak suñu mbokku tiktok bi tamit wala ngeen jéggal ma parce que tey bariwuma appareil donc mënu woon taal fii taal fale mais maa ngi dem ci suñu mbokku tiktok ba ñoom it ma waxtaan ak ñoom waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu